gis ngeen ko yéen dañ leen tere ngeen dugg ci biir bu bi leen wooyee dañ leen ngeen dugg ci biir ngeen constaté seen bopp parce que loolu mooy rôle journaliste pour que bu nee la grève bi réussir na yéen ngeen xam ndax ñun wax nañ dëgg wala waxuñu dëgg waaw mais nag bu leen tere c'est parce que yëf yi yi dafa keeb mais bu leen wóoree ni le mot d'ordre n'a pas été suivi dinañ leen bàyyi ngeen dugg ci biir te loolu la ñu constaté fépp ci Sénégal tey ji léegi léegi léegi laa raconté ak sama camarade yi nekk à li ma wax moo di muy hôpital régional muy distributeur yëpp marqué nañ ko à Kédougou c'est la même situation c'est la à Tambacounda en tout cas ba Passy léegi léegi rek woo nañ ma sama camarade yi nekkoon parce que ñi ngi naw nañ ne ñi ngi dem léegi sookoon li ma wax yëpp moo di la moo d'ordre ay été largement suivi donc loolu ci boppam ñu ciy gërëm camarades yi di leen satisfaire mais nag euh, mënoo toog nga nekk ci administration euh, waroo woon sax toog yow ba naan état na ma defal dara tey jii président Macky Sall bi mu fi ñëwee ba tey mu ñëwee ba tey agent de santé de ñu wax ni defal na leen dara mën naa defal ñëpp nag mën na wax ni budget yokku na ko ay 5000 milliards mën na wax ni budget santé def na ko macha allah yokku na ko mais bu bu fi jóge woon tey jii ñun duñu am fàttaliku ba rafet ci moom nga baal ma ci wax ji nag président Abdoulaye bu mu fi ñëwee au moins gis nañ suñu salaire am na évolution mais moom du 15 te Covid bi jaar na fi fu nekk tagg nañ ñu mais pourquoi ñun ñu mën a toog ñu ne seen salaire moo gën a bon ci salaire yi. ñuy woo ay nit en catémini benn benn ay secteur woo nañ élevage ak agriculture néew mu mérité woon nañ ko mais mérité nañ ko bu baax li leen jox mais ay fonctionnaire hiérarchie B dañ fay nekk hiérarchie B la nga xam ni mooy infirmier infirmier d'état moom mooy njëkk parce que ñoom ñoo ci gën a kawe B1 la mais infirmier d'état fii bac plus la nga jël ñoo ñu jox leen benn indemnité bu 250 000 alors que infirmier d'état bi amul sax salaire am yëpp boo ko boolee amul cent amul 180 000 buy doog dugg. est-ce que yaakaar nga ci administration est-ce que kay bay wala kay sàmm nag ñu baal ma ci terme bi moo gën fuuf ki nga xam ne moom mooy faj ay malade ñu dem ay agent wu nu mu teeti euh, inspecteur du travail mérité nañ lu ama ta jële di franchement jox leen 400000 mais tey jii ñu nekkoon ñun nekk am niveau master amuñu loolu comprendre ñu dem ci enseignants yi barki dem waxtaan nañ ñoom jox nañ leen xam nga mais ma yaakaar ne baax na nga jox ñooñu mais pourquoi ñun ñu fàttali tey lu mel ni indemnité de logement jox nañ ko benn jox nañ ñëpp jox ñu leen ko li jëm ci plan de carrière bi aussi day tardé ENDC si ngi nii ubbeetu nu benn concours pour nit ñi formé wu pose un problème problème agent de santé communautaire yi aussi ñu ngi fi tey jii boo fekkee da ngay vacciner nga bëgg a vacciner ak foo mën a vacciner pour nga vaccination boobu mën a nekk il faut nga am ñoo àndal ñooñu nga àndal di la dimbale ñooñu impérativement il lii situation prestataire aussi c'est la même chose loolu il faut ñu régler ko lii mooy nga xam ni tamit problème collectivité locale yi ah mooy acte de la décenne non ministre bi dégguñu ko Abdoulaye saar moom amul amul cër ak respect ci administration parce que xam nga lu tax euh, dafa nekk koo xam ni saa yu xoolee mu am ñuy yëngu bu fekkee ni mënuñu leen mënuñu leen corrompre ah wala mënuñu leen monitorer dañuy ut ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di yàqal cest à dañuy créer ay genre yeneen syndicat di gëmloo nit ñi ñooñu ñoo am doole pour bañ a waxtaan ak ñeneen ñi parce que xam nañ ni bu ñu jàkkaarloog ñoom ci boppam dëgg la leen di wax mais du ñun ñoo xam ni boo ñëwee am loo waxanteeg ñoom wala loo defanteeg ñoom ñu daal di bàyyi ñun nekkuñu foofu parce que ñun kenn ëmbul suñu sànqal donc ku ëmbul sa sànqal mënul ëmb sa kersa mais nag tey jii réalité de terrain bi il faut ñu wan leen ni loolu moo ci am donc responsabilité maintenant état la de sa Abdoulaye Diouf président de la république moo ko fal su fekkee nag liggéeyul pour askan mi président na jël responsabilité bu jël responsable ñun dinañ jël suñu responsabilité et commencé nañ ko xam nga campagne de vaccination polio bi boycotté nañ ko déggoo ci ñu wax ci parce que partout au Sénégal les gens ont boycotté ils n'ont même pas atteint 20 pour cent gis naa fenn ñuy wax ay 100 pour cent plus de 100 pour cent nan nga mën a ñëwee nga ne vaccination contre Covid bi yow amoo un million 500 mille amoo 1 million 500 mille nga ni en 3 jours mën nga couvrir xale yi nekk Sénégal yëpp bay am ay plus de <laughs> plus de ça mais ça kan lan yëpp yéen ñi dugg nañ seen kër yi borom kër yi sax ñoo bañ ñu vacciner seen doom loolu mooy réalité donc bu ñuy taxaw di di di di kàcc nga baal ma ci wax ji di wax loo xam ni amul mais loolu kan la ñuy nax mi ngi mel ni mag bu jaaxaan di saw rek lu mu saw ci yaramam lay dellu siwaat mais nag ñu toogati système bi suñu loxol nekk on fera tout pour pour que pour que loolu ma nekk meneen problème mooy vaccination yi. bu nu taxawul dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ dinañ ci def li ñuy def nii te bu boobaa xam nañ conséquence yi mooy lan ay épidémie dina fi jogaat muy rougeole muy fièvre jaune muy cocolis muy diphtérie bu benn sénégalais nag taxaw ni ñu ah ñun ñoo indi affaire boobu seul l'état c'est la responsable on souhaite pas en arriver là waaw benn ministre moo nu tontu ci courrier yu ne envoyé bi ñu déposé préavis de grève bi mooy ministre fonction publique te daf ñu wax rek ni jot naa seen courrier mais bu weesoo loolu woowu ñun ñu waxtaan la moo tax ñu mën a woo ñeneen waxtaan ak ñoom ba pare ñu mënuñu waxtaan la moo xew ba tax ñun ñu waxtaan c'est-à-dire ñun waa lan la dañuy ñu yàpp wala lan la damay nettali rek benn histoire bu mosoon am benn góor goo xam ni dafa feebaroon mu faatu bi mu faatoo ci njabootam daf ci am koo xam ne xel mi neexul woon euh, ñuy miraas bi ñuy miraas ñu jël ñëpp séddale leen bi ñu séddalee ñëpp ñu ne ah kii de xel mi neexul comme xel mi neexul boo ko joxee da koy yàq te moom nelaw rek la nan ko bàyyi ak nelaw ndeke moom mi ngi leen doon dégg kooku dafa bàyyi ba guddi nit ñi nelaw mu jël yatam képp kuy nelaw mu jël yat bi door la ñu la jógal kaay ne waa kii li muy def nii mu ne leen bu ngeen miraasee nelaw ngeen ma sedd comme nelaw ngeen ma sédde kenn du nelaw mais ñu xam ni kii waxu nit vrai vrai la leen wax ñu delloowaat jox leen comme nag ñun ko noonu la ñu teg cest à dof la ñu teg ah dinañ katakay xam nga dof rek du yem da ngay katakay ne ak ñoom boo katakay nee rek ñu ba ban xam ban ban nekkaan nga nekk nit ak ñoom te fu mu leen jaral rek lu lu nu baax rek dinañ ko ngeer loolu moo dama leen fu mu leen jaral ba déggoo li ma la président état bi bu caree ñu boycotté programme bi muy vaccination muy planification familiale dinañ ko def fasanawul tax programme yooyu ci la ñuy amee xaalis gis nga Covid bi euh, nu ma lay wax programme euh, euh, programme mu GNV yu bërki démb yi ay milliards la yu UNICEF joxe sous régional Sénégal depuis 97 ba tey gisuloo fi benn cas polio les quelques cas polio c'est des cas ça veut dire que mi ngi ci programme élargi de vaccination te gars yi ngi liggéey su sénégalais yi vac ñi doon vacciné liggéeyuñu woon di nga ay cas parce que les gens ont bien travaillé moo tax amul cas maintenant pourquoi ñuy vacciner parce que c'est pour capter les ay millions la yoo xam ni bëgguñu mu rëcc leen parce que jox nañ ko Mali jox ko yeneen dëkk yi comme c'est la sous-région ñu capté mais 97 ba tey amoo benn cas polio ba pare nga ni da ngay vacciner alors que loolu mi ngi ci biir programme de vaccination c'est parce que xaalis la maintenant fa ñuy lekke xaalis ba pare duñu tumurankel foofu la ñuy ba dootuñu lekk dara bu ñu demee ba xiif nag nañ taxaw jàkkaarloo ñu ne leen nag ubbil leen ñu robinet yi bu boobaa ñu ubbil leen robinet yi. vous avez vu bon à cette heure-ci <laughs> il y avait beaucoup de monde il y a personne le service est complètement vide donc le mot d'ordre a été suivi ici à 100 pour